yoonu mucc gi yàlla tëral mbokk yi tey jii dinañu tënk ni yàlla tëralee mucc àddina yoonu jàmm ca yàlla mbind mu sell mi nee na ca ndorte la yàlla sàkk na àddina ak lépp lu ci nekk ci kàddoom rekk yàlla dafa wax rek lépp sàkku sàkk na suuf si gàncax yi ak mala yi lépp li yàlla sàkk dafa baaxoon gannaaw ga mu sàkk aadama nit ki jëkk ci pënd suuf yàlla sàkk nit def ko ni moom maanaam mu may ko xel xol ak dogal ci boppam yàlla may na nit ki xel ngir mu xam ko te bëgg ko yàlla sakkul aadama ba noppi xañ ko coobare boppam yàlla may na nit ki xel ngir muy xalaat ak coobare ngir muy tànnal boppam aadama ak nun ñëpp ñu ngi juddoo ak xel ak coobare ngir di tànnal sunu bopp gannaaw bi yàlla sàkkee aadama yàlla nelawloo ko yàlla jël benn faaru aadama sàkk ci jigéen jigéen ji tudd awa mu war a wéttali aadama yàlla dëkkal aadama ak awa ci ab tool bu rafet bu ñuy woowee àjjana yàlla ne leen mën nañoo lekk te doomi garab yépp ba mu des benn yàlla ne leen suñu lekkee ci garab googa kon dinañu dee ngoon gu nekk yàlla daan na waxtaan ak aadama ay xarit lañu woon te jàmm amoon na seen diggante gannaaw gi seytaane nax awa ak aadama ba ñu lekk ci garab gi leen yàlla tere seytaane bëggoon na yàq seen kóllëre ak yàlla waaye ñoom la neex ñu déglu seytaane ba a déggal yàlla bi aadama ak awa bàkkaaree te lu ñu xam ne yaramu neen lañu def ñu wut ay xob defar ci yére ñu ngi doon jéem a def lu neex yàlla waaye yàlla nanguwul li ñu def yàlla rey am mala defaral leen ci ay yére loolu moo woon aadama ak awa ne atteb bàkkaar mooy dee wane leen itam ne yàlla bëgg na leen ba tey bi aadama ak awa bàkkaaree fa leen yàlla jàppee ni ñu dee seen kóllëre ak yàlla jeexoon na yàq nañu jàmm ji nekkoon ci seen diggante ak yàlla bàkkaar boobu tax na yàlla daq Adama ak Awa toolu àjjana yàlla dafa jub àndul ci bàkkaar loolu moo tax Adama ak Awa mëntuñu woon dëkk ak moom waaye yàlla dafa am yërmande mu dig Adama ak Awa ne dina am bës ab sëtu awa dina ñëw sët boobu dina daan seytaane ngir delloo kóllëre ak jàmm ci diggante yàlla ak nit ñi adama ak awa amoon nañu ñaari doom yu góor ay bàkkaarkat lañu woon ni ki seeni waajur ndaxte doon nañu seeni jikko kóllëre amul woon seen diggante ak yàlla jàmm amul woon itam seen diggante ak yàlla nun itam bàkkaarkat lañu ndaxte aadama ak awa ñooy sunuy maam nun itam kóllëre amul sunu diggante ak yàlla bi kayin ak abel doomi aadama ak awa yi màggee am bés ñuy màggal yàlla abel saraxe am xar ci ngëm xam na ne teqalikoo na ak yàlla te yelloon na dee tuur na deretu mala ngir wone ne bakarkat la kayin jël ca la mu bay saraxe kayin nanguwul woon ne bakarkat la te yelloon na dee ñaka gëm yàlla moo tax kayin joxewul sarax bi yàlla bëgg bëggoon na màggal yàlla waaye ci ni mu ko neexe yàlla wax kayin mu def li jub noonu moom yàlla dina ko nangu waaye kayin daldi mer bañ a déggal yàlla yàlla nangu na saraxu abel waaye nanguwul bu kayin war nanoon nangu ne bàkkaarkat yu mënalul sunu bopp dara lañu te yelloon nañu dee war nañu gëm yàlla ngir dellu ci yàlla war nañu jaar ci yoon wi mu tëral ngir mu mun noo musal ay at yu bare jàll nit ñu bare dëkk ci kaw suuf waaye amuñu woon yitte ci xam yàlla walla xam li yàlla santaane noonu yàlla dogal ne dina sànq nit ñépp ci am mbënn yàlla gis genn góor gu ñuy wax noyin muy ku gëmoon yàlla yàlla dafa am yërmande te dafa jub moo tax bëggul woon rey noyin noonu mu wax noyin mu daaj ak gaal gu mag mu wax ko mu artu nit ñi ñu tuub képp ku tuub te nangu ne bàkkaarkat la mën na dugg ci gaal gi ngir mucc waaye nit ñi wéy ci bàkkaar noyin dugg ca gaal ga ak waa këram mu yóbbaale ci xeetu mala mu nekk menn mu góor ak menn mu jigéen ñoom rek ñoo mucc ca mbënn ma yàlla wax noyin ak i doomam ñu am doom yu bare mu wax leen ñu tasaaroo fépp ci àddina yàlla won na leen yoonu mucc gi ndax seen ngëm lu yàgg gannaaw mbënd mi nit ñi barewaat ci kaw suuf waaye ñu bañ a def li yàlla wax ne ñu tasaaroo fépp ci àddina ñu tàmbali tabax ab sóoróor ñu bëgg sóoróor bi kawe balaal asamaan bëgg ñu woon jaar ci yoon wi yàlla tëral ngir ñu ak ci moom noonu yàlla saafaan seeni làkk tas leen ci kaw suuf ñun itam mënuñu àgg ci yàlla suñu jaaree ci suñu yoonu bopp mën musal suñu bopp lu yàgg gannaaw loolooti yàlla gis ne nit ñi bonati nañu waaye yàlla gis genn góor gu ko gëm mu ngi tuddoon Ibrahima yàlla dikk Ibrahima am réew ak aw askan wu yaa mu dig ko ne kenn ci ay sëtam mooy kii mu dig aadama ak Awa mooy daan seytaane ngir jaamu mën a dellusi ci diggante yàlla ak nit ñi. yàlla sant Ibrahima mu jébbale Isaaxa doomam ni sarax suñuy lakk yàlla dafa doon nat ngëmu Ibrahima Ibrahima bëggoon na doomam waaye yàlla la gënoon a bëgg noonu façon na yéene def li ko yàlla sant fi Ibrahima yëkkatee paaka bi ngir rendi doom ji yàlla yónnee ko am kuuy Ibrahima bàyyi doom ji rendi kuuy mi kuuy mi moo wuutu doom ji yàlla musal na Isaaxa doomu Ibrahima ndax ngëmu Ibrahima nunu itam war na nañu gëm yàlla war nañu am ngëm itam ci yoon wi mu tëral ngir musal nu askanu Ibrahima doon aw xeet bu mag ni ko yàlla dige woon Ibrahima yàlla waxoon na Ibrahima ne askanam dina dem ca meneen réew te doon fa jaam ñeenti téeméeri at loolu doon na dëgg ndax askanu Ibrahima maanaam bani Israël doon nañu ay jaam ca Misira ñeenti téeméeri at yàlla dige woon na ne dina jële waa Israël ci buumu njaam ga yàlla tànn na yonent yàlla musa ngir mu matal loolu yàlla may na musa dooley def kéemaan yu bare ngir mu mun a fexe ba Firawna bàyyi waa Israyil ñu génn misra Firawna amoon na ay luxkat yu bare yu seytaane doole loon ngir ñuy def ay kéemaan niki musa waaye yàlla moo leen ëpp doole Firawna ba a bàyyi waa Israël ñu génn Misra mu gi yàlla ne dafay rey bépp taaw bu góor muy maladi nit ci Misra waaye yàlla ci yërmandeem won na waa Israël yoon wu ñu mucce yàlla wax waa Israël ñu saraxe xar wala béy mu wax leen ñu wis deret ji ci kaw seeni bunt kër ak ci wet yi malami mooy wutu taaw bi ci kër gi waa Israël def li leen yàlla sant ndax seen ngëm noonu seeni taaw daldi mucc waaye taaw waa Misra yépp yàlla rey leen ruuskati na amuñu woon dooley musal waa Misra ci ateb yàlla nun itam mënuñu jafandu ci kenn ba mu musal nu yàlla rek moonu mën a musal waa Israël dem ba nekk xet wu yaa yàlla wax leen ne mooy seen yàlla te war nañu ko déggal mu jox leen fukki ndigal yi fukki ndigal yi won nañu leen li ñu war a def ak naka lañu war a jëflante ci askan wi ni mu neexe yàlla mi jub te sell yàlla xamoon na ne nit bàkkaarkat la te kon mënul topp ndigalam yépp fu mu toll yàlla dafa joxe ndigal yi ngir nit ñi bañ a wéeru ci seen bopp yàlla joxe na ndigal yi ngir nit ñi gëm ko ngir mu musal leen nun itam bu nuy jéem a topp fukki ndigali yàlla yi dinañu xam ne mënuñu topp yàlla ba mu mat yàlla ci yërmandeem won na waa Israël yoon wu ñuy jaar yàlla won na leen yoon wi ngir mu mun leen a musal ci seeni bàkkaar yàlla wax na sëriñ bu mag bi muy saraxe am xar mu amul sikk ngir bàkkaari nit ñi at mu nekk sëriñ bu mag bi war na dugg ci bërëb bu sel baa sel ba ca kër yàlla ga benn yoon foofa dina fa wis deretu xar ma mu saraxe néegu biir boobu sëriñ bu mag bi rek moo ci mënoon dugg néeg baa nga nekkoon ca gannaaw ab rido saa sëriñ bu mag bi defee loolu yàlla baal waa israel seeni bàkkaar ci at moomu deretu malami mi fayulu bàkkaar yi dafay won yàlla ne mbooloo mi nangu na ne ay bàkkaarkat lañu nangu nañu ne yelloo nañu dee dafay won yàlla itam ne gëm nañu ne dina leen yónnee ab musalkat ngir ñu mën a mucc ci seeni bàkkaar deretu mala mënul la fay sunuy bàkkaar nun itam war na noo nangu ne mënuñu fayal sunuy bopp sunuy bàkkaar kon soxla nañu ku nu leen fayal kooku sunu musalkat yàlla wax na yonent yu bare ci mbirum musalkat bi fey sunuy bàkkaar ngir delloo jàmm sunu diggante ak yàlla yàlla wax na ci mbiram jaare ko ci yonentam lu ëpp ñetti téeméeri yoon yàlla wax na lii ci ay mbiram ab janq moo koy jur betleyem lay juddoo dina wax ci ay léeb dina ubbi bati gumba faj lafañ yi te wéral jarag yi dinañu ko bañ dinañu ko daaj ci bant dina dekki gannaaw ñetti fan waxi yàlla yooyu yépp mat na ci yeesu kirist maanaam isaa ci alxuraan te mu tekki kàddug yàlla gi mooy musalkat bi yàlla dig aadama ak awa gannaaw gi digg na ko ibrahima dig ko daawuda ak yonent yépp ab jànq moo jur ci betleyem jàngal na nit ñi ci ay léeb def na kéemaan yu bare faj na jarag yi dàq na ay rab yu jàppoon ay nit faj na ñu gumba ñu lafañ ak ñu tëx dekkil na ñu dee amul benn yonent bu def kéemaan yi mu def te kenn du ko def nit ñu bare gëmoon nañu yéesu waaye ñi ëpp ci sëriñ yawut yi gëmuñu ko woon bëgguñu woon seen daraja wàññiku loolu moo tax ñu bañoon koo déglu xamuñu woon lan moo tax yéesu ñëw àddina am na ay nit ñu xalaatoon ne yeesu dafa ñëw ngir jële leen ci noteelu rom seytaane fiir na yéesu waaye yéesu mësul bàkkaar li la santaane rek la daan def moom rek moo mën a doon sunu sarax moom rek moo dee ngir fay sunuy bàkkaar ndaxte moom rek moo amul benn bàkkaar loolu la yàlla tëral ci ndorte la yeesu wutu nanu bi mu tuuree deretam ju sell ji ngir fay sunuy bàkkaar loolu mooy sarax bu sell bu mat bi yàlla nangu ngir mu doon sunu peyooru bàkkaar yonent yàlla yaxya wax na lii ci mbirum yéesu xool leen kii mooy mbotem yàlla mi ñu nar a rey ngir dindi bàkkaaru àddina ci diggu bëccëg bi yeesu nekkee ci diggante dund ak dee ca bant ba mu lëndëm ñetti waxtu mel ni guddi bi yeesu saayee réeru bërëb bu sel ba sell ba ca kër yàlla ga daldi xar ñaar li ko dalee ci kaw ba ci suuf yàlla xar na ko ngir wone ne nangu na deewug yéesu muy sarax bi fay bàkkaar yi léegi kenn soxlaatul rey mala ngir saraxe yéesu joxe na njëg gi ba noppi joxe na ko ba faw te ñetteelu fan wa ganaaw bi ñu suulee yéesu yàlla dekkil ko tey ji mu ngi toog ci ndeyjooru yàlla ca kaw asamaan keroog bés bu ba ñun ñëpp dinañ taxaw fa kanam yàlla naka lañu ñuy attee su say jëf yu baax ëppee say jëf yu bon ndax di nga mucc déedéet mbind mu sell mi nee na yàlla dafa sell te jub yàlla mënula dund sax ak benn bàkkaar ndax mën nañoo topp fukki ndigal yi ba mucc ci ateb yàlla déedéet ndaxte kenn mënu leen a topp te doo ci mooy lenn mi ni mu sell mi nee na ñépp bàkkaar ba joteetuñu ndamu yàlla benn jëfu nit mënul fay bàkkaaram yàlla dinañu teg tooñ ndax sunuy bàkkaar ate ba moo nuy teqale ak yàlla ba faw mooy nu dem safara mënuñoo def dara ci sunu doole bopp ba yelloo taxaw fa kanam yàlla waaye ab xabaar bu baax a ngi nii yàlla boroom yërmande la yàlla xalal nanu ba noppi yoon wi jëm ci moom yoon woowu mooy nga gëm Yesu Christ Yesu Kirist dee na ngir bàkkaari nit ñépp deewam wutu na sunu jos yàlla soxlaatul beneen sarax war nañu nangu ne bàkkaarkat lañu nangu deretu yeesu ngir mu raxas sunuy bàkkaar su ko defee yeesu dina doon sunu ràmmukat noonu yàlla dina nu baal te dina juboowaat ak nun seytaane bëggul nit ki am kóllëre ak yàlla moo tax dafa nu jéem a nax ngir nu yaakaar ne yoon yu bare jëm ca yàlla waaye mbind mu sell mi dafa leer kon ni nit ñi deyee benn yoon rek ba noppi jaar ca ate ba ni ko yàlla dogale noonu it la Christ joxe boppam benn yoon ngir gàddu bakkaaru nit ñu bare te dina feeñaat waxuma ci mbiri bakkaar waaye ngir indil ñu koy séentu mucc gi soo faqee ab bànqaas ci garab ndax bànqaas bi dina mënatee dund déedéet du mënati dund ndaxte teqalikoo na ak li ko doon dundal bànqaas bi dina dee car yi taq ci moom dinañu dee xob yi taq ci car yi itam dinañu dee garab gi ñu wax léegi mooy yàlla banqaas boobu mooy misaalu doomu aadama banqaas bi mooy sunu maam Adama bi mu bakkaaree la teqalikoo ak yàlla àndaale ak askanam wépp bi yàlla génne Adama ak Awa toolu ajana la jàmm ji nekkoon seen diggante ak yàlla tas foofu la seen xel mi taxoon ci yàlla deewe ba tey jii nit ñi dañoo teqalikoo ak yàlla ni seen mam Adama ñu delluwaat ci banqaas bi ndax banqaas bi mën na taxalaat boppam ci garab gi ngir mën a dundaat déedéet bànqaas bi mënulul boppam dara lenn rek moo mën a tax bànqaas bi mucc maanaam dundaat mooy nit greffé ko ca garab ga ci nun itam noonu la mën noo defal yàlla dara ba juboo waat ak moom ngir mën a mucc lenn rek moo mën a tax ñu mucc moo ñu am ku nu taxalewaat ak yàlla te kooku am na moo Yesu Christ mi joxe bakkanam ngir fay bakkaari nit ñi mbind mu sell mi nee na ndaxte jenn yàlla képp moo am ak benn ràmmukat képp diggante yàlla ak nit ñi di nit ki Christ yéesu mi joxe bakkanam ngir jot ñépp soo bëggee Yesu doon sa musalkat war nga nangu ne bàkkaarkat nga war nga nangu ne mënululoo sa bopp dara niki bànqaas bi ak ay caram war nga nangu ne bokkatoo ci yàlla war nga gëm ne yéesu dee ngir fey say bakkaar war nga sant yàlla ci li mu yónni yeesu ci àddina ngir mu fey say bakkaar soo nangoo loolu lépp te gëm ko ci lu wër yàlla jubawaat na ak yow te yaa ngi ci yoon wi jëm ci dund gudul jeex ak moom lii la mbind mu sell mi wax ci mbirum yéesu ndaxte soob na yàlla mu dëkkal matam gépp ci moom te jaar ci moom jubale lépp ak boppam muy ci kaw asamaan yi mbaa ci suuf ba mu wàccee jàmm jaar la ko ci deret ji tuuru ba doom ji deewee ca bant ba mbokk yi lii moo tënk sunu nettali yi yàlla moo tëraloon lii lépp ngir musal nu jaare ko ci yeesu kirist mbokk yi léegi nag seen ngëm moo ci des mbind mu sel mi nee na ndaxte yàlla dafa bëgg àddina ba joxe jenn doomam ji mu am képp ngir képp ku ko gëm am dund gu dul jeex te doo sànku mukk na leen yàlla barkeel amin